dapat ang iligan, no? dama ne la sa bu ma ko teg laa la wax. jékk mbaxane. day nalaw waaye jékk mbaxane foo ne. damay jaay jéng. Eh. di xool fooy féete foo dul féete. sa ter bu tey ma sa loxo laa la eh. wax. tey ma sa loxo laa la wax rek nga fi am. yaa la si sama kër. ma ne tey lii moo tax sa jëkkër daw ah bu kaw neexoon da golo du wàcc lii la la a yow la góor a koy may jàmm yow la dama ne góor danga koy may jàmm dama sa kër moom fekk la fa fii maa ko moom fekk del dama ne ah yéen nag kenn xamul lan la lu ma neex rek moo ci am dama bëgg doy na nga génn si kër yéen yàlla bu dugg di rey dugg dëgg la nga doon yow jëkk nga xaaral rek mbokk yi ci nii ci seen bu doy waar bi eh, lañu mujjee